bi ñëwee nag fekk nañ fi waa làmb yëpp ndax mbër yaa ngi fi presse bi couvrir làmb ñu ngi fi ñëpp a ngi fi tey Sa Touba euh, baal ñu àq si weeru koor gi waaw ansu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi santaat Serigne Saliou bu baax di santaat Serigne Saliou bu baax di santaat Serigne Saliou Mbacke bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla di am contentement bu baax ci seen teewaay fii ndax man lii daf ma daf maa sax war na si Cheikhul dem ndax barki démb ci guddi laa toog rek sama xel dem ci ne daaw defoon naa ay ndogu ren war naa ko mën a defaat daaw maa ngi ko defoon gàlle muudloo ren mu fekk ma fii intégens ma nekk sama kër ma ne naa ko fi defee wax dëgg yàlla waa kër gi yëpp ñëw jàpp ci liggéey bi sama xol sedd trop vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax daal alhamdulilah. bi ma ñëwee laaj naa ñu bëri fii jël naa fi ay mbër ay ba sa tuktakër boobu ay dara ak ñu bare bare bari mais ñëpp témoignage bi benn la maanaam li la liyee ak ñoom la ñu wax sa mbaaxaay jàppale boo leen jàppale ci li ngay liggéey parce que ku ne xam ne tamit yàlla dafa la dimbale ci wàllum ñaan nga euh, tey ñëw boobu ayusu boobu ñu la wusi noo ko yéege ci sa xol waaw xam nga lépp sant yàlla rek ndax nit moom mun ngaa loué base loué siège waaye doomu aadama kenn mun leen a loué tey ay dara mi wër sëñ Tuubaa ñëw gi mu ñëw fii sax wallaahi la azim daf ma jëlee kaw dama jekki-jekki rek mu woo ma di ma laaj laay ñëw ma tegtal ko dama jekki jékki gis ko ci buntu kër gi moom sama frère la parce que ànduñu ci lu dul dëgg nag ndax man yéen li ngeen may xam lépp yaakaar naa bokk naa ci mara yi nga xamante ni tey kenn mësul jël vidéo di ma yóbbu vaar parce que chaque jour dama leen koy faral di wax yàlla moo mën a wane lu weex ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul ko laay fi mu daan def ci temps yi match yeeg làmb yeeg yooyu yëpp dama ci daan dugg ñu ngi nii mais yaakaar naa nit mësuma ci wax loolu lu ma warut wala ma def ci lu ma warut def ndax lépp rek damay jiital yàlla suñu borom bi donte suñu borom xam na lu mu ñu may waaye nag maa ngi jëflanteeg seen i nit ñuy gis ay preuve mu ñu ciy am ay résultats yoo xamante ni tey mi ngi law ñoom ñëpp ñu koy ñu ciy jot kon tey loolu dañuy sant yàlla mënuñu yàlla rek la ndax lu waay def mu sotti yàlla la neex dañ ciy santaat yàlla bu baax a baax di kontaan si seen teewaay fii su nga ñun góor a soog garga dë gaa yëpp daam seen ñëpp ñëw nañu ñëpp Modou Baye Fall gaa yëpp ñëw nañ barki Seexul Xadim Ibou Laye ñëw fi indi fi ay teraanga lu ne mu defal ma ko xam nga ñun Modou Anta Modou Anta itam sonn ci bis bi jël alalam def ko ci wallahi la azim tey bis bi mun naa ne lim ci def lépp sax mënu ma ko wax barki alxuraan comme si que moom moom bis bi bisam la ba pare te nangu ci feeñ maa ngi koy sant bu baax a baax xaadim Anta mi moom it gis nga ko tey bis bi moo tax mu dagg yitteem yëpp ñëw jël ay teraangaam def ko ci Mamadou Khadim Anta Seck non bagage yi nga xam ne moo dem ci waañ bi yëpp moo ko jënd ah. wallahi man du ma waxal nit loo xam ne defalu ma ko ah, na may teraanga Modou Baye Fall defal may teraanga di sant itam maire kenn kenn moom it wax dëgg yàlla tey jàpp nañ ci bu baax a baax te te ñooñu ñëpp yëgalu ma ko ci kenn dañoo dañoo dégg ne saa Touba mooy def ay ndogu tey rek kenn ku nekk di am loo ciy dugal wallaahi la azim di sant diaspora bi ñëpp nag sama nit yëpp ay jaw fara ñëpp rek bàyyi ma kenn wax dëgg yàlla samay nit yi bopp a ngi foofu Abdou Seck wallaahi la di santaat bu baax a baax a baax a baax Laye maa ngi koy sant bu baax a baax Laye Africa doomu ay eh, dara maa ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla gars yi jàpp nañ ci bu baax a baax dépense bi ci dem bëri na xanaa xaalis bi waaw non duñ duñ duñu xool lu bari ndax suñu diggante ak Serigne ak suñu diggante suñu borom lépp luñ ciy def rek maam du bëri ci ñun bu doon milliards yi dañu koy ci def parce que gëm nañ dañoo gëm ne luñ ci def lu ne dañuy amaat lu ko raw ndax heure bi daaw nekkuñu woon fii waaw kon tey am na loo xamante sant la waaw heure bi daaw ci kër jàmbur lañ ko doon defee tey ñu defee ko suñu kër ga waaw loolu koy sant yàlla la waaw loolu sant mais gën ko defoon këram daaw muy Modou Lo coow bëri na fan yi lool ku ne ku la xam-xam sa diggante ak moom ci diggante mag Ama diggante mag Boy Niang loo noo ko gisee affaire bi daal rax baatin wala qu'est-ce lan la waaw xam nga muudu xam nga muuru nag moom la yàlla bindee noonu dafa rampé ba jot yëf yi mbir mi nag képp ku ko yor coow bari ci yow nag waaw xoolal parce que moom la ñëpp bëgg a bëreel kenn ku ne tey bëgg nga moom muuru fii bi mu tollee fii Ama Baldé toll ak Boy Niang ku yor couronne bi rek yow la bëggoon a bëreel ba mu des Yékini rek la mësul doon bëgg a bëreel mais ku dul Yékini couronne bi nekk say loxo rek Modou bëgg naa bëri yow looloo tax mu jógee ci Balla Gaye ñëw jëli Eumeu Sène direct moom mi yor couronne jël couronne bi ci ay loxoom kon tey force force ba ci laa la wax mboolem kuy takk ngemb ci làmb ji sa bët bi yëpp yaa ngi ko teg ci li mu yor ci loxoom kon faaw coow bëri mënul ñàkk mais ce que lii mu jël nii dina ko arrangé. am ah, mais loolu yëpp dara yooyu yëpp tey yàlla rek moo xam est-ce que yaa dañ koy ñaanal yàlla rek yan bi oyof ci kawam di ñaanal bëri tam ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk tey li nga bëgg sa àdduna yaa ko xam yàlla defal la ko di ñaan yàlla daal combat bu mu ci mën di doon yàlla na am rek. Balla Gaye de lu ngeen seq. dañoo bokk Serigne Touba. waaw. da nga ñaanal ci ay bésam. dañoo bokk sëriñ Touba daal. ndax da nga koy ñaanal ci ay bésam. waa déggoo li ma la xanaa ma ne la dañoo bokk Serigne tuubaa man ak Balla Gaye de loolu kay jeex na nit kay bi ngeen bokkee Serigne Touba mun ngeen a seq lu ne. Hmm. dama dégg Papis général ci ay waxtaanam maa ngi koy nuyu di ko ziar Papis sam waa ji ci combat Eumeu Sène Balla laaj ko ci mu ne Balla moom maanaam fi mu nekk nii ci ni mu waxee làmb war na ko ginnaaw maanaam ci làmb fi mu nekk nii moom mënu maanaam daal affaire yi biddiwam dafa mel ni dafa fay na dem jàppale Sa Thiès. loo ji man wax dëgg yàlla yàlla dafa ma bindee benn affaire Papis général gis-gisam la wax yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér yaram ci gis-gisam fi lay waxee ak fi xam-xamam toll kenn ku nekk mais it yàlla sunu borom bi moom li may wax rek chaque jour day wane lu weex ba nga gis ko mu def ko mu ñuul ndax dégg nga ma. yàlla dina def lu weex. ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul kukk ndax dégg nga ma day xiin bañ ne day taw te du taw nga jekk-jekk mooy taw te xiinut moo tax yàlla sunu borom bi kenn mënu koo natt fenn rabbi samaawaati rek a fi ne hmm. buñ di wax ci lu ñëwagul. combat boobu yëg nga ko Balla ak Eumeu noo ko doon gis waaw yëg naa ko ñaari ndaanaan la ñaari champion gis kera bi ñu toogee yow ci baatin maa noonu leen gis ñaar ñu maam ñaar ñu dal ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk am na cër boo jox sa moroom am na looy rusee sa morom hmm. waaye duñu rusante ci biir géew hmm. waaw mais mbirum baatin mën na def différence combat waaw lamb nag moom dafa dafa xaw a doy waaw lamb dafa xawa a doy waar mais maa ngi lay xamal daal ne la yàlla nañ ko bëre ci jàmm ak salaam rek dañ yegg ca bis ba. Hmm. waaw après la fooy taxaw bu keroogee. waaw bis bu ñu yeggee ci bis ba rek danañ xam fu ñu taxaw. nekk lu ma fi benn mbër mbër bu ma fay ma liggéey la. Hmm. barke Serigne Saliou. bu Balla Gaye ñëwee. maa ngi lay waatal Serigne Saliou Mbacke. bis boobu mbër boo ci gis ma ànd ak moom ci kàttanu yàlla yonent bi xamal na mooy am ndam incha allah. nga ni ma. Balla Eumeu Sène koo ci àndal mooy am ndam. déggoo ma de yàlla nañ ci yàlla jóg jàmm ba saa lii da ngay jaayu la wala loo lu ne si yow la wala qu'est-ce yow xam nga man du ma ragal man Serigne Saliou rek laa gëm lamb dama ko mën. sama empreinte dama ko marqué ci lamb doonul loo xam ne lu may ñëw di triser la wala dara déedéet. Hmm. lu ma ñëw la suñu borom am lu ma ci may ma di ko wane nit ñi di gis te taxul ma reculer chaque presque chaque lamb ngeen gis ma ma ñëw indi mbër. li ngay indi mbër bëri na de. kon jeex na. mais nga ne Balla ak machine bis booba waat nga ne koo jàndal mooy am na. ci kàttanu yàlla ak yonent bi. ci may yàlla suñu borom bi rek. saa li nga wax daa doy waar te kawe. ci may yàlla suñu borom bi te daf ci am mbër boo xam ne dama am lu dama am lu ma xam ci moom lu bari. ñaar ñuy bëri. Ah. du ay caaxaan de. saa yëpp yàlla dogal na. Ah. kenn ki moom muy Balla Gaye. Ah. bëri na ak ñun ñaari yoon. waaw. daan ñu ñaari yoon. kenn ki ñu bëreeg moom ñaari yoon daan ko ñaari yoon. te kii ki nga xam ne ñun ñoo ko daan ñaari yoon daan na Balla Gaye ñaari yoon. ndax dégg nga ma. foofu yàlla moo doon wane boppam foofu. gis nga làmb ji. dama lay wax benn affaire kenn mënul kenn ku yàlla dimbale rek a fi ne. ndax dégg nga baax naa. mbëri. gis nga ni baaraam yi sutante noonu la seen wërsëg yi sutante noonu la seen sens yi wutee. diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène Modou mutloo ak Balla Gaye Modou Lo ak ku ci dajeeg sa morom des fois da ngay toll ci guddi yoo xamante ni sa biddiw day gën a leer sa biddiw morom ñaanal la muy gën a yomb ñaanal ki ci des ndax dégg nga bu baax li may wax nii da ngay bokk ak nit ndey bàyyi ngeen nekk ci kër gi mu mujj judd ba pare yor kër gi wërsëgu kër gi yëpp ci loxoom lay tegu te moo mujj judd noonu la demee nag ci làmb nit da lay mën junni yoon ñëw nga daan ko bindu ko foo xalaat ne fa lay leere ki ngay àndal. waaw ah, déglu ma sax wax nga ko bu yaa ah, parce que itam duñu ñu tëb tëb dugg ci dara nag ma wax la ko tey ñun lépp lu ñu dugg lu ne nañ ko xool bu baax. waaw nañ ko xool bu baax ànd ceeg yow nag xanaa nga dëgër bopp xam nga mbëri nag daal mbëri dëgër bopp léeg-léeg nga wax ci mbër dara ba mu dem jël yoonu boppam waaye mbër yi may gem ñi ngi may dégg bu ci benn mbër bu ma ci musee wax ak benn mbër wax la ngemb la ci combat ba pare wax la lamb ji te waxuma la lamb ji ni muy demee na ko wax na nga def sorti wax ko. loolu na nañ saa kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan Babacar wax dëgg yàlla ndax xam nga yéen moom da ngeen a garaaw waaye waruma woon wax sax ci làmb tey mais journaliste yi moom boo toogee ak ñoom daa mel ne am lu ñuy takk <laughs> faaw ñu dugal la ji làmb ko waaw <laughs> mais sant yàlla te di leen ñaanal yàlla rek ngeen dem ba am seen i site bopp dem ba am seen télé bopp yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal ndax ñu baax ngeen te yéen da rek. wax yàlla ngeen xool lu baax ngeen di ko def xool ñoo xamante ni tey xam nga seen diggante kiiwul ngeen fexe ba mu ratax ndax des fois ma gis ngeen jël ñaari nit ñu doon coow yóbbu ko ci genn ñu toog ñu jubale leen seq ak ñoom ay teraanga xam nga loolu jullit moo koy def am na ci ñoo xam ne nag dañuy féewale rek waaw am na ci ñoo xam ne dañuy féewale rek mais daal nañu xam ne adduna yàlla moo ko moom dañuy rafetal xol yi te bëggante te soppante te wóolante te kenn ku nekk li nga yéene sa morom na nga sa mbokku jullit mbokku taalibe ndax yàlla suñu borom bi kenn du moom barke alxuraanu karim maa ngi baal ñëpp àq tey baalu ñëpp àq mboolem axlu làmb nag mboolem axlu làmb maa ngi baalu ñëpp àq ndax des fois ma ma ñëw ci làmb amaana ñu gis ma ànd ak beneen mbër ñaa àndat ak mbër boobu du leen neex te amaana dañ may bëgg sax waaye bu ñu ma gisee rek du leen neex mais dama leen koy jégalu te ñu xam ne sama liggéey rek laa yor ku ci yoroon sa place atelier tey doon menuisier métallique wala dara doo tàmm koy ñaanal ko koy liggéey la ko dul liggéeyal man itam métier mi yor noonu la demee demu ma fekk mbër waaye mbër bu ma wóolu ba ñëw liggéey ak man dama lay liggéeyal ndax dégg nga bu baax li ma wax nii kon am na ci loo xamante nii man doonul loo xam ne man maa ko kii sama bopp maa ko incarné sama bopp déedéet incarné ma sama bopp dogalu suñu borom la li nga xam ne moom laay mujjee mooy damay am ku may sant koo xamante ni doonut loo xamante lu may waxantu ni la sama biir xol waaw Babacar Gor fii laa toog ci sama salle bi ay nit di waxtaan ak moom ci wàllu social bu jëm ci prison bi biñ waxtaan ak ñoom ba pare Gor Sock na leen am naa sama benn waay joo xam ne gis naa ko muy def lu baax kaa leen ñu dem ca moom ci lañ solee seen dàll ñëw ci man te Babacar képp ku lay jëmale ci yoonu yàlla kooku jullit àqan la kooku ku la yéene la kaa ñu def lu baax képp ku la ko wax kooku ku loo yéene la bi mu ñëwee wax ma ko fii affaire bi daf ma marqué ma ne leen bu soobee yàlla suba na ngeen ñëw lépp lu ci war te man mën ko dinaa ko def ci laa woo ku ñuy wax ay di ko ci digg ci guddi gi parce que ko téléphone Aïcha jëndal leen 32 matelas ma xëy ba set dem jënd ay seta satala li nga xam ne moom laa moom laa yaakaar yëpp ay ay ay siwo ay ay omo ay saabu yi nga xam ne moom la ñuy soxla foofu ay meew ay xasida lépp ma ñëw teg ko fii woo ko mu ñëw jël si ma ànd ak ñoom xëy jël sama oto jox leen ne leen dem ma àndaat ak ñoom dem yóbbu ko campanar maa ngi lancé appel ci autorité yi nañu gestu ñu ci prison yi beneen bi ci topp Babacar barki Serigne Saliou Mbacké billahi lazi laa ilaha illallah prison bi dafa metti Babacar sama yaram dafa daw démba ab imaam moo jënd jàkkaarloo ñun nii jëxran bi muy waxtaan ak ñun lim ñu njëkk a wax te dëggum naa juróom-ñetti at la ñu wax ci kaso bi ci imaam yorog njaboot juróom-ñetti at laa la wax juróom-ñetti at moom la tëddugum ci kaso bi la wax xam nga loolu metti na dese fa ay at beneen imaam bi jënd na moom tëddugum na juróom-ñeenti at te gis naa fa ku tëdd fukki at ak juróom-ñaar réew mi waruñ fee tëj nit loo xamante ni koo xamante ni tey jëlut ay bakkan wala mu def loo xamante ni tey dañu xam ne kii dafa doon koo xamante ni lii muy def nii da cee sax di ko def di ko defaat. parce que tey am na ñu ñu gën a fonk loi fop te da nga nit dana rey nit sax te teyu ko sax wallaahi la azim te du tëdd yenn tëdd yi ñu jox ko avertissement ba mu defaat ko mais da ngay dem ci kaso yi ay chambre yoo xamante ne ay plus de deux cent personnes di ci fanaan trois cent personnes nit ñi di fa feebare ba di fa ñàkk seen bakka nit ñi di fa dee état bi nañ xoolaat bu baax a baax di tëj nit giir gu dund loolu amul fenn ci àddina dañu xool cinq ans sax dafa bëri ci doomu aadama parce que képp koo bëgg a jubbante bi wallahi la azim juróomi at foo ko foo ko tëj doomu aadama boo ko tëj bu bëggee baax bu jénnee a baax ndax juróomi at dafa doy doy na ci kaso xoolal gis naa koo xam ne vingt-trois la fa tëdd door a jénn xoolal loolu dañuy jënd sax doonuñu xamee Ndakaaru seen kër sax doonuñu xam fu mu féete dañu xoolaat bu baax justice dañuy xoolaat bu baax li ñuy atte te xam ne yamal xiyaam am na de yan yi dafa metti barke Seydina Mohamed billaahi wallaahi taalaay ku dem 100 mètres wala nga dem camp pénal wala nga dem Koutal da nga xam ne metti na prisonniers ñooy nettali li ñuy dund foofu ñi nga xam ne ñoo nekkoon Koutal ñoo ñu doon expliqué nii dañu wax carrément café Touba sax pour buñ ko daan naan maanaam ñi segg ba pare lañuy la ñaan seggit bi pour seggaat ko ñoom xoolal lu ko gën a metti du ñu lekk lu neex duñ fa jógee di feebar di dund lu ne te ba pare billaahi wallaahi tàllaahi góor soog ma na ma seere ñi ñu àndaloon ñëpp dem foofu noonu ca programme bi yóbbu social bi ñu jënd ci prison bi ñoom ñëpp wàcc alxuraan te ci prison bi lañ ko jàngee xam nga ne kooku tey ñu ngi fay dund yàlla sunu borom bi waaye nañ leen di dimbale ñi nga xam ne ñu ngi leen fa denc fàtte leen am na ñoo xam ne defuñu dara dañ leen a tuumaal kese ñu fàtte leen ci kaso bi ñu xool sax seeni i dossier état bi na gëstu juwaat xoolaat ñi nga xamante ni def nañ fa yenn at yi ñu dimbale leen jénne leen ñu delluwaat seen njaboot te tax képp koo xam ne contrôlé na ñu ne def na fa 10 ans rek 10 ans donc ñu ne ko def na ko fa wala 5 ans yu mat état war naa ko mun a def te yàlla rek tax jën ko mu dellu ci ay njabootam def ko te yàlla dong tax nag laa bu mu ko topp ci dara ndax fii muy muy ku mën a doon ci àdduna nag képp ko ci yàlla suñu borom bi topp ci say mbir dong laa la benn fan benn fan bu la ko baalu doo doo fekkee suba kon nañu dimbalante ngir yàlla te yàlla rek tax ñu suturaalante état bi gestu ñu nekk ci prison yi prison yi metti na prison yi metti na te gaa yi fay dund lu métti nag bu buñ leen ko waxee buñ leen ko waxul barki Seydina Muhammad dañ fay dund lu métti des fois nit dund fa loo xamante day jénn sax ñëkk xam nga ñëkk mooy waral sax muy def lu mu warul def parce que nga tëj nit ki ba mu fàtte vie ba am ñoo xam ne dañuy nekk ci kaso ba seeni waajur jën àdduna seen ginnaaw ci loo xam ne ci ay tuuma ak ay ñàkk fayda ma d'accord naa ñi nga xam ne dañooy rey nit franc grand délai ñooñu lu mu dee dee mën nañ leen a tëj cinq ans yu mat sëkk juróomi at laa la wax juróomi at décret boobu dañ ko war a fexe sëñ bi ñu atte leen attab ray sax kon moo gën yenn yi atte nit ki attab ray sax moo gën parce que ci lis ci dëkkub diine lañ nekk ku rey nit ñu rey la sax mu noppalu buñ ko defee te kenn dootu rey kenn mais xoolal nga nga jël buñ ko defoon moo gën a yomb sax lii ñu def nii ku rey ñu rey la buñ ko doon def moo gën a yomb li ñu def nii jël nit tëj ko giir gi dund ci kaso mu nekk fa am na ñoo xam ne est xam nga ne tëj gi ngi leen tëj mooy rey seen i waajur Babacar yow xamul ñu tëj la waaye am na ñoo xam ne seen seen doom bu feebaree rek ñoom mun nañ ci tiit ba dee mun nañ ci ko souffrir mën nañ ko xalaat ba dee rawatina nga nga dem ñu jël sa doom yóbbu ko tribunal di ko atte ñu ne tëj nañ ko ngir gu dund mu dugg sa nopp wala tëj nañ ko 10 ans mu dugg sa nopp am na ñu ci ñaax seen bakkan kon daal foofu li ñuy wax mooy yàlla nañ yàlla dimbali musal ñu sàmm ñu te aar ñu ah te teg yoonu ci mu siraatal mustaqim parce que itam ay jaam lañu te jaam moom moomul boppam ndogal ci jaam la ko yàlla di awale ci la koy teg kon ndogal yi nga xam ne ñun dañoo dëkk ak moom ñu ngi ñaan yàlla rek mu musal ñu ñoom ña fa nekk itam yàlla dimbali génn leen bu ñu defati lu leen fa yóbbu loolu lañ leen di ñaanal ku defut te ñu tëj la tamit xëy na ab nattu la waaye waaye bu keroog li nga wax rek ñay atteeg ña yore ndogal ya ñooy xoolaat rek mbir ya parce que kaso moom ku ne xam na ne baaxul wala boog gënul neexul te it yéen kenn du ko yéene kenn ndax it lu doy doy waar la mais nag seste boobu ngeen def nga ànd ak góor a suug yëkkati seen alal woo ay nañ yëkkati seen alal loolu rek wane na ne que yéen tamit ngi jaamu yàlla ci li nga xam ne nii moom la leen yàlla jox mu seen ñaq saa kontaan bu baax a baax ci li nga wax parce que wax ji am na solo trop. di ci lancé waat borom ñi nga xam ne ñoom la yàlla may as tuut ñu gestu juwaat ñu ne ci hôpital yi ak ñi ne ci prison yi rek ñu jaamu foofu yàlla man loolu rek laa waaw ñu jaamu fa yàlla nañ gestu ju ñooñu te jaamu fa yàlla parce que am na loo xam ne am na foo koy dugal fay suñu borom ngay am direct hôpital wala kaso heure boo fa yóbboo sa alal. yóbbul nga ko say mbokk yóbbul nga ko sa doom yóbbul nga ko say jarbaat ndax hôpital boo dem amaana koo mën a gis ci àdduna am na mbokk mu tëdd hôpital wala mbokk mu tëdd kaso kon tey jii buñ buñ jëlee bëggee def lu baax danañ ko def fii ku bëgg a def lu baax def ko ku bëgg def lu bon it def ko kon yàlla ñu yàlla musal ci ay ñaawteef yàlla xéttal ñu ci lu baax yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar te nangul ñu koor te suñ kilifa diine yi yàlla bàyyi leen fi réew mi itam yàlla saxal fi jàmm rek nag yàlla saxal fi jàmm kese te jàmm rek a fi am barki Serigne Saliou ndax réew mi li ñu am la benn réew amut réew mi sëñ Touba tëdd moom Alaaji Malick tëdd fa bàyyi Laay tëdd fa Baye Niass tëdd fa Cheikh Omar Fouti Tall tëdd fa gis nga dama lay wax benn affaire ku ko bëgg a taalit yaay tàkk rek jàmm rek mooy am ci suñu réew mi tey ak ëllëg nag yàlla na ko yàlla defal barki Serigne suñu xol sedd na trop wax dëgg yàlla santaat nañ bu baax a baax Serigne Saliou